maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi daje yëpp nuyoo bi gën a tedd di jiital ci nuyoo boobu Cheikh mun Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér ñu teew fi teewal fi Serigne Moustapha ibnu Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne moo jiite euh, guy mbind ñuy ndokkeel mboolem ko nga xam ne ñëw nga fi ginnaaw nuyoo boobu may ndokkeel njabootu Serigne Balla Coro ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee bés bii te xam ne ñoom waxuma la sax Mbàkke mais am na leneen lu ñu seq ak sëriñ Baara kon Serigne Bas loolu bu ko feeñalee tey jii am na ñëpp am nañ ci mbégte di nuyu njabootu euh, sëriñ Serigne Cheikh Coro ñoom ñëpp benn lañ koo ci nuyu rek nuyu nga ko ca des ñuy nuyu te leen sant ci taxawaay bu rafet bii itam ñuy nuyu njabootu Serigne. Euh, Sidi Mouhamed mi nga xam ne moo jógee Tiwaawan ànd ak mbooleem ñi mu ànd dool teew fii ñëpp ñi nga xam ne ñoo jóge ñaseen ñi nga xam ne ñoo jóge Canaba ci kër diine yëpp ndax bis yu mel nii euh, euh, dafa war di am ndax li tax mu war di am mooy mag ñi ñoom ñëpp benn la ñu woon seen bëgg-bëgg benn la woon bëgg-bëgg bi weesu wutoon sàmm séréatul ya taxawal ko ba noonu yàlla yi duñ ko ñaaj loolu moo ma a nekk seen taxawaay démb ak bërki démb kon loolee itam nag moo wéy tey jii ndax jitaay bii ku fi ñëw doo wax ni murit la doo wax ni tijaan la doo wax ni laayeen la ñëpp kenn ku nekk sa cër bi nga am sa bi sa maam am ci lislaam am ko ci Sénégal jox nañ la ko ci jitaay bii te bi nga ñëwee itam fekk nga ko fi kon Serigne Bassirou bokk yëpp dañu àndandoo sa ci ci ci ci kaddu Serigne Moustapha nga bokkal sëñ Baara ñëpp sëñ Cheikh Aziz waxoon na ko wa ndax ndaje mii du ma wax ndaje murit du ma wax ndaje tiyaan du ma wax ndaje laayeen dama naan ndaje lislaam la da ngaa fexe ba dajale fi lislaam yëpp tey itam li waral nga man fee dajale nit ñi mooy lu jiitu lii ku le ku le ñu dëkk ak yow xam nañ ne doo noppalu ngir dem ci xew yi lool nag tey jii nit ñi fay nañ la ko ndax nit ñi moom ku leen téye ñu téye la ku leen téye wutit ñu seeti ku leen téye kon Serigne Bassirou taxawaay bi nga xam ne am nga ko ba mën a taxawal lii ñoo ngi la ci sant bu baax di nuyu bu baax itam eh, sa xarit di sama xarit di Alaaji Abdoulaye Dia ak Moustapha ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Souley Diagne di nuyu sëriñ Moustapha Abdoul Karam di nuyu mboolem suñu kilifa yi nga xam ne ñëwoon nañ fi ñoom ñëpp. Euh, bis bii nag dafa am luñ ci war a jànge liñ ci war a jànge mooy contexte bii nu toll nga xam ne gone yi ñoom ñëpp babbeeku nañ. mag ñi di jaay seeni kër seen baay yi jaay seen kër seen ndey yi jaay seeni kër seen jarbaat yi jaay seeni kër di leen ko jox ñuy dem xamuñu ni wa tilkal ayaamu nu daawilaa bayna nas tey yow ëllëg sa morom tey jii Europe aaye waaye déwén Sénégal euh, Afrique mën naa aaye te mën nañ dem ba tubaab yi bàbbeeku di jëm si fii xamuñu ni wërsëg nekkul ci tubaab nekkul ci fen nekkul nekkul fen mi ngi ci loxo yàlla suñu borom te ni mu nekk ci loxo yàlla suñu borom itam yàlla kenn ku nekk sa biirum ndey ba nga doon jóge wax na ñaata am ñaata ngay noyyi loo fiy lekk diir boo fiy am loo fiy naan loolu lépp suñu borom tënk na ko ba pare dem France taxut nga am ko dem Italie taxut nga am ko toog fii taxut nga am ko yàlla suñu borom moo ko joxe te ku mu ko jox foo mën a nekk dina la fekk dem gi gone yi dem nag toor responsabilité bi partagé responsabilité bi ñëpp a ci bokk kenn ku nekk am nga ci wàll kenn ku nekk bu jëlee aw wàllam yaakaar naa ne loolu mën naa wàññeeku te fi ne ndax wax ma wax ma sa ëllëgu réew wax ma say ndaw ma wax la sa ëllëgu réew réew bu demee ba bëgg ñàkk ndaw dootul am yaakaar. te tubaab yi ñoom ñëpp fi doon li amatuñ ay ndaw ay mag rek la ñu am suñ gone yii di dem nii ñu naan téye mënuñu leen a téye tubaab yi bu ñu leen bëggoon a téye benn fan ñu téye leen waaye jeexal nañ takk ay ndaw root suñu ndaw yi ñu dem tabaxaleewaat leen seen réew yi loolu la ñu bëgg kon nag loolu ñu ngi wax ñëpp ñu bàyyi ci xel euh, te itam di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ndax sëriñ Sidi Muxtaar daf daan wax ne jàmm ci la lépp nekk Euh, bala ngaa xam jàmm njariñam da koo ñàkk saa bu la caabi féete ginnaaw nga naan nuyul ma bàyyi diw ak neel bàyyi diw maa ngi bërëb sàngam di nga xam njariñul jàmm mu dellu wax ne lu yàgg wolof ni lu wax lu yàgg dëgg la sëriñ Seydi Moxtaar ni déedéet lu yàgg tey lu baax dëgg la waaye lu bon lu mu yàgg-yàgg du dëgg te sëriñ Bass journée bi am na fukki at ak juróom benn kon yàgg na te dëgg la kon ñëpp xam na ne lu baax la di di di di di nuyu mboolem parents yi nga xam ne dañ leen a tuddee woon bis bi ngir di leen fàttaliku ñoo ñëpp dañ doon nit ñoo xam ne ñu bokk ci yoon bi la du nuyu mboolem délégation boo xam ne da nga fee ñëw di dénk nit ñi ñu ñu ñu ñu ñu ñu sax ci jaamu yàlla ñu sax ci liggéey ñu sax ci booloo nekk benn xool critères yi nga xam ne mag ñi yooyu critères yooyu lañ fa tegoon te moo indi lislaam ba mu yëg si ba mu yëg si fii ñuy dénk nit ñu jàpp ci lool ñu tuubal yàlla ñu dellu ci suñu borom ñu ragal yàlla ndax ndax fi mu nekk nii yàlla moom du soppiku mukk ñun ñun rek ñooy soppeeku waaye yàlla moom fa mu nekkoon du fa jóge ba ilaa yow mi diine kon ñu góorgóorlu baax ci jaamu yàlla góorgóorlu ci liggéey booloo nekk benn te wut jàmm ndax jàmm ci la lépp nekk ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah